bari na lu xew rabi la. rabi ñooy xam nga ndeysaan dafa des fois ma def émission boo xam ni. mais code yi ay code laa namm nag ñu def émission di joxe code. waaw waaw waaw xam nga. Mhm. fi ma waxee mooy. ma bëgg dimbali nit ñi ci wàllu seet. première bi mooy. waaw. ki nga xam ne dara jotu ko. Mhm. mu sëy ak soxnaam ci sens yi. Mhm. bu paree mel ni dañ ko yenn àdduna. mu wëlbati ko dootul bëgg xool soxna si kooku soxnaam am na ram dégg ngeen ko benn signe ñoo ngi noonu. dégg nga wax bi yow waa bu dee da ngaa tëdd dara jotu la. Mm-hmm. nga yeewu suba sa yaram bi diis gann julli fajar sax da lay të. Mm-hmm. am nga rab rabu yéefar la. Mm-hmm. boo déggee rab boobu li tax muy diis mooy. day nekk rabu li ci ëpp euh, ninki nanka. ninki nanka dafa bari doole. moo wax na ñi mooy def tremblement de terre. maanaam. sëñ Laajo Xaas ay nitu guddi yooyu yooyu nga doon wax na am na télé yu mag. am na hôpital yu mu am hôpital yu mu am. <laughs> am na kii yooyu ñëwaatal mi ngi am ba léegi. xanaa xamoo ñoom attaqué wul la. kaay ma wax la ci dara. waaw gis nga lu tey opération yi. Mhm. bëri na tey ñu koy def. ay nitu guddi lañu. gis bu dama ko mhm. parce que tey boo xoolee seex liy dee ci hôpital yi. Mhm. est-ce gis nga ñuy dee kër sëriñ si. sëñ Abdoulaye Diop xaas doon ñëwal nag ci wàllum football am na footballeur yu bari ñoo ngi seetaan tegtal ñii club yu ndaw la nekk bëgg yu mag. ñii ñii ci club yi mag mais dañuy toog ban ñii dañoo xëccoog place ba tubaab bu ñàng boo xam ne ko nag tubaab bi du foddu caaxaan du tardé entraînement ñii nag moom dañ bëgg a tàkk ñi ngi toj club yi mais équipe nationale faalewul leen duñ fi am baat ba suñu équipe nationale bi ku fi a tubaabee sax li ma li ma li ma leen di digal mooy waaw jamono ji mhm. damaa gis lu bari di ref gis nga jamono ji waaw entraînement waaw man football wala entraîner mhm. man bëre mayul kenn dam sa Abdoulaye Diop Khass dafa am ñu indi nit sa kër nga ne diw mii ba mu dugg. bien sûr est-ce que comme laa wax na génn demal ba nàngam. mu dugg ci taxi mu kër gi rek jaare fa. dugg ci taxi bi rek. dugg ci taxi bi loolu moom moom lan la. kii nag ba ma ko xoolee. Mhm. xam naa ni mënu ma koo faj. da xool xam ne matal la xam naa ni matal la automatiquement nag bala ñuy dee <laughs> dee sama kër ñu waa kër sëñ Ablaye la. ma ne dem leen day dañ koo dugal ci taxi bi oto bi dawul tuuti rek waaye ñëw ne ma dee na. yaa ko wax tegtal. waaw maanaam fii la lépp di leeree. nañ sax waaw. Tektal TV. fii la lépp kon nag kon nag